Omar Mbeng ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay nga bokk ci collectif Bargny di non à Tociali ngeen mhm. taxawal kuréel googu lànk ne boobule usine duñ ko fa tabax ca ñi lu waral mhm. loolu. waaw li waral loolu mooy euh, situation Bargny dafa euh, doon situation bu doy waar au mhm. plan environnemental parce que déjà jamono yi état bi di am volonté pour andi euh, Tociali à Bargny dafa fekk ñu am euh, yeneen euh, comment s'appelle euh, entreprise yu polluante yoo xam ne dafa nekk Bargny yu mel ni peut-être Sococim ak centrale ak charbon bi ak port vraquier et yi mm-hmm. te loolu lépp di ay entreprise yoo xamante ne boo ko xoolee ci jeexital bi ñu am ci alam bi jeexital bu doyo doy waar la boo xam ne mën na andi ay sooxite ci wàllu wér-gu-yaramu population yi mm-hmm. te Sococim mu ngi fa depuis mille cent quarante-huit di def li muy def di toj suñu ay kër di ñu polluer donc euh, di polluer également suñu géej te boobu ba léegi amul lenn mu def par yi euh, naka noonu centrale ak charbon bi te ñëpp xam nañ ne l' état du Sénégal de signataire bi COP 21 ak port côtier ak minéralier bi ñu nekkoon kon dana ëpp maanaam xel sax waru xelaat atmosphère bu mel noonu dajee ci benn commune ba pare ñu bëgg amaat volonté andiwaat fa beneen si dirige loolu daal moo tax ñu ne. Euh, lii moom euh, suñu bakkan jiite voilà. ngeen commencé ay manifestation euh, tey jii lan mooy suite plan d'action bi. waaw fi mu toll nii bon comme ni ma ko waxee ci en fait ci presse bi ak yeneen seen a ah. je pense que commencé déjà dem ci quartier yi di waxtaan ak nit ñi di leen sensibiliser ci social yi li mu nar a am ci jeexital ci impact négatif par rapport à votre cadre de vie. dañu ñuy waxtaan aussi ak imam yi. Euh, ak délégué de quartier ak bàjjenu gox bi euh, pour que ñu xam plus ou moins impact bi nga xamante ne social yi am na ko ci dundu waa Bargny et que probablement euh, dans un abali force dinañu dem ci benn manifestation pourquoi pas wala benn marche ñu ngi ciy liggéey xam naa ne ci diir bu gàtt yéen presse bi peut-être di ngeen ci jot tey ji nga wax impact yi euh, dëgg la nee nga pollution euh, xaj na ci comme yeneen industrie yi fa nekk euh, bu Teuss-Wally boobu bu implanté foogoo ne ndaw yi dinañ am xëy wala non non cest à du problème u xëy c'est-à-dire bëggu bëgguma ñuy dugg ci boobu mm-hmm. yéen journalistes yi aussi des fois nañ leen tromper ci sujet boobu parce que une sidérurgie installation bi mooy laaj main d'œuvre mais bu demee ba phase production bi deuxième phase bi laajul ay loxo mm. c'est des machines qui font tout la fonte du fer tout ça ay machines ñoo koy def donc soxlewul ay loxo te encore une fois Bargny soxlewul na entreprise baa xam ne dañaa rey pour liggéey parce que bu fekkee ne li ngeen di installé je sais pas da ngeen yaakaar day jël waa Bargny ba teg mhm. ñu ko Bargny. pose euh, première pierre bi mu mel ni jàpp nañ date le 20 novembre gi ñu dëgmal euh, sauf euh, changement ndax da ngeen namm dara bés boobu. ndax seen manifestation gi ngeen doon wax da ngeen ko maintenir ba tey. waaw cest à amoon ay projet projet de TDR yi ay de TDR la def yaa ngi dégg ne dañuy commencer la la première pierre pierre autant pour Euh, mais loolu ay projet la woon c'est-à-dire woon TDR mais projet la. Mhm. mais dafa mel ni état bi loolu moo wax ay projet de TDR en réalité ay TDR la parce que tout simplement ñu ngi def ay démarches yoo xamante ni man jàpp naa ne ñoom ñu ngi ci logique bu maintenir date boobu waaye nañu xam ne rek bu boobaa te ñuy fekk te pare nañu pour lépp pour euh, social yi bañ fi am. maanaam pare nan. waaw pare mooy euh, benn. Euh, pose première pierre boobu du fa mën a am parce que bu boobaa ñu fekk site bi incha allah bu ñu ñëwee di installé loolu fa lañu fa la ñu koy fekk te bu boobaa comme ni ma ko waxee te ñaari mbir rek mooy mën a am soit première pierre xeer wi tagu wala ay bakkeen root waaw. ndax mesuré ngeen représailles yi ampleur bi. ampleur bi c'est-à-dire. maanaam bu ngeen forcé am manifestation. parce que bu yàggul euh, bu yàggul amoon ngeen a ànd ceeg front euh, doy na bëggoon a manifester. Euh, préfet nangu ko tey ji ngeen fas yéene waat dem euh, ci benn organisation du ñàkk représailles maanaam mhm. non cas yi du benn lii doy na respecté au niveau du département on avait euh, a une marche à hauteur de fële Sokabek HLM fële mhm. préfet bañ ne bon circulation nit ñi ak oto yi mën na perturbé wu ba finalement mu mujjee nu mu tudd mu mujjee annulé marche bi mhm. mais fii ñun waa Bargny ça c'est local ñun waa Bargny ñoo mënuñu noo tooñ ba du ñu dëggaat ba du ñu def forcing forcing bi c' est du côté de l' état pas du côté des populations état bi moo ñu ko jox force sociale yi te bu boobaa fi la ñuy fekk voilà tey Bargny dafa mel ni wax nga ko sànq ci say kàddu euh, dafa doon diwaan bi nga xam ne industrie dañ ko euh, c'est prisé comme on dit euh, tey te Soali démb centrale à charbon lañ digoon Sococim tey ndax am na ay mesures d'accompagnement yu industrie yooyu la ci mbirum RSE yi dans le cadre des RSE. waaw mooy li ma la wax sànq. Mm-hmm. muy Sococim muy centrale à charbon bi mooy le projet en construction. amul lenn la ñuy defal bari amul ñu benn njëriñ larul lil nu polluer point barre dil nu rey en fait du hôpitaux du prise en des personnes de la troisième âge du ay bourse du dara amul ñu njëriñ bëgguñu ko sax bari ñun mais dem feneen bëgguñu sa sa suuf ba pire condition la bëgguñu sociali tey bëgguñu ëllëg te leen ñoo waxoon ci centrale bi ñu commencé nañ parce que centrale boobu ba léegi nii mën la produire. mooy lan voilà mooy lan. li leen waxoon mooy même bu fekkee da ngeen def forcing vous n'allez jamais vendre l'électricité naka la tudd à la Senelec te loolu mooy dëgg tey. Euh, tey jii Bargny jafe-jafe euh, suuf wala sax jafe-jafe euh, jël terrain gi ñu déggoon ci wàllu port minéral bi amoon ci ñi nga xam ne ñu ngi doon ñaxtu ne seeni suuf maanaam ay victimes lañu ñu waroon leen indemniser problème boobu fan toll. waaw loolu le président Sall ñëwoon na ne da leen indemniser récemment aussi envoyé woon na ministre de la pêche loolu la Alioune ñu ñëw fa def ay promesses mais comme d'habitude rek yàgg nañu def Sall bi mu fañ président Sall bi m fa njëkkee ñëw waxoon na ne day relogé waa Bargny Géej mais yooyu ay wax ay caaxaan la rek boobu ba léegi kenn indemnisé wul kenn te foofu aussi y a lieu de préciser hmm. que ni ñun Bargny en général dañu am problème foncier mooy parce que le président Sall dafa jël mille six cent quarante quatre hectares boole ko à la nga jarñaajo dégg nga hmm. jël tey si port braquier bi quelque chose comme trois cent cinquante neuf hectares hmm. et plus même parce que boo demee sur le site da ngay gis ne diggante géej bërum espace boobu yëpp nañ ko jox un certain Dame Diané d' accord. Mhm. te espace boobu tey moo war a service d' entrepôt pour que certaines entreprises ñëw di entreposer foofu seen ay produit yu ko mel ni charbon yu ko mel ni suuf wala nitrate te yooyu noonu yëpp tey yaa ngi dégg mu ngi war a xewee maanaam boo jëlee centrale bi ak port vraquier bi loolu leen mu ngi amee mu ngi bëgg am dans un rayon deux kilomètres donc soo koy xool tey loolu bombe écologique nga boo xam ne nii dañ ko bëgg a defar yi te loolu bés bu explosé maa day taale ci waa Bargny ndax seen combat bi jëm ci euh, lii di euh, Tossoali mëne ngeen ko euh, woo ngeen ci ay autorité ñu ngi leen ci ñu ngi leen ciy jàppale wala da ngeen cee wéet waaw sa yoonu noo weetuñu si c'est-à-dire ñun lépp lu ñu on est des légalistes lu ñu yoon may rek danañ ko def on a introduit des plaintes n'est-ce pas auprès des bailleurs donc juridiquement aussi danañ jël ay benn pool d'avocat pour ñu engager le combat juridique ñun aussi au plan politique comme ni ma la ko waxee sànq am na yu ñuy prévoir yu mag a mag a mag yoo xam na ni tout Bargny sortira et l'État du Sénégal saura que cette fois-ci on est déterminé bon pour que bon en fait euh, socialisme ne soit pas implanté à Bargny. lan la noonu ndax mën nañ koo xam wala da ngeen di bàyyi ba mu ñor ngeen. waaw waaw ñu ngi koy togg incha allah. ci lu ah. diir bu gàtt incha allah ngeen ci di ngeen ci yor. tey mu am mbir mu fi nekk bu concerné ndaw yi muy euh, immigration irrégulière bi ñu gis ne euh, géej gi euh, ndaw yi ñeme nañ ko lool jël gaal gi dem mbëkk mi ndax baax ñi comme Rufisque dañoo doon ay zone yi nga xam ne tamit pêche bi am na fa ndax ay zone yu touché la waaw mais naturellement soxna si naturellement parce que tout simplement kane ab lébu xam ne lébu napp lay dundee mooy mm-hmm. activité rémunératrice maanaam mooy activité principale am bu muy amee koom pour mën a dem yor ak njabootam. Mhm. tey je pense que journaliste la journaliste ga yaa may gën a nekk sax à l'aise pour comprendre plus ou moins la situation de la presse au niveau national pourquoi parce que ñun ñëpp gis nañu licence de taxi waaye léegi bu fekkee ne tey ñu ko dëkk la tudd nappakatu euh, euh, géej gi dem nañu ba mën saña am sax ab yaabay ab tos sax mën saña kaa am mais nan la ñaa def dañaa jël ñuy gaal nekk ay passeur pour jël booy yóbbu leen géej yóbbu leen autant pour moi Espagne ay euh, Italie parce que tout simplement géej gi amatul ay jën barki waa ci démb le président signé ay accord de pêche avec Union européenne ah si si si comment ça s'appelle si si si si dix mille tonnes par an pour deux milliards vous imaginez loolu mooy lan daanaka kilo bi deux cent francs hmm? kon ñoom tey dañu am volonté pour mën a rey nu mu tudde mool yi mais nit ki mënoo ko xañ activité ba pare nag ne du dem Europe loolu mënul nekk kaa yi dina gën yokku cas yi dana gën a yokk parce que mool yi amatuñu aw jën te que amatul aw jën amatuloo jën waa jaay toor ak njaboot dinaa seet naa def seet naa def mooy lan jël sa gàll ci la tournée eb ci ay guni yóbbul ñu Espagne. tey ba ñu commencé tudd phénomène bi ba tey euh, ay semaines yu bëri ndax baax ñi tudd nañ ko ci mbir mi ndax ay ndaw jóge nañ fa bokk ci gaal yi. waaw mooy li ma la wax rek sur la côte dans tous les quartiers lébou naturellement muy Bargny non dama bëgg a xam dama bëgg a xayma yéen nan ngeen impacté. non uh-huh. naturellement ma am un nombre du ma am un chiffre exact. d'accord je parle pas de chiffre mais donc phénomène bi touché na Bargny comme ni mu laalee. naturellement soxna si naturellement tout simplement ay dem ko di jën à cause uh-huh. ñoo ngi ne du ñàkk xëy moo tax ndaw yi wutali fële. Euh, tey euh, napp gi tamit sooxe na comme ni nga ko waxee mu doon tamit euh, ci xëy ñu boole ko ci xëy nga foog ne ndaw yi di dem xaalis googu ñuy jël parce que gaal yi tamit xaalis la di nga dégg ku la ne deux cent mille laa jël bu ñu jëloon investir ko seen réew ci leneen ci entrepreneuriat duñ fi teg duñ fi toog def fi dara luñ jàpp loolu day fekk état bi encadré leen et créer des conditions yoo xamante ne am à égal nu mu des chances égales par rapport aux investisseurs privés. Mhm. mais li ñu gis Sénégal mooy lan état bi day primer les investisseurs privés au détriment des investisseurs euh, locaux malheureusement te aussi petit les petits affaires là ñu ndaw ndawaan yi ngay yëngatu mais mënoo si concurrence ñu mag bi gis nañ le cas ak yeneen yeneen yeneen entreprise yu fi nekk donc xale yi amatuñu espoir fii amatuñu espoir amatuñu espoir donc euh, man bon gën naa entrepreneuriat mais quand même day fekk état bi encadré leen yaa ngi dégg ànd ak ñoom gunge leen ba loolu ñu bëgg si wàllu entrepreneuriat mu mën a sotti mais malheureusement ce qu'on voit au Sénégal mooy que ne l'État est en fait prime n'est-ce pas les investisseurs privés au détriment euh, des investisseurs locaux. Euh, et mhm. naturellement xale yi dañu découragé loolu moo leen di yóbbu fële. jëm ci c'est l'échec de l'État en fait. c'est l'échec de l'État wax nga ko euh, delluwaat ci euh, conséquences yi nga xam ne moom la euh, industrie yi nekk bar ñi di causé soo ko ci wàllum kaaraange ndax mën nañoo am ay exemples yi nga xam ne moom lay causé comme conséquence waaw conséquence yi bari na parce que tey soo ko sim buy produire ciment day émettre ay gaz naturellement ak de la poussière mhm. te loolu ku xam nu mu tuddee la pollution de l'environnement naturellement da xam ne lii day impact négatif ci wér-gu-yaramu population yi naturellement euh, les maladies cardiaques les maladies respiratoires et cetera et cetera les maladies euh, comment ça s'appelle infantiles naturellement donc loolu euh, teg ci aussi au-delà des impacts comme ça sur les populations mais soo ko si tous les vendredis day door ay minam muy xar suñu ay kër chaque vendredi et que aussi fi ñu nekk seeni carrière ak le quartier Castor c'est dans le même périmètre amul sax benn donc loolu lépp ay impact yoo xam ne ñu ngi koy dund depuis mille neuf cent quarante huit te ba léegi nii dara du ab dërëm du lenn la mu def par ñi et par exemple je an un exemple par exemple bu fekkee da nga jógee Tëngéej di dem comme ça sur Bargny en passant par Edeka da ngay gis mu exposé comme ça à ciel euh, ouvert comme ça son charbon ñu koy nooyi muy dem géej comme ça di polluer géej gi di rey nu mu tudd euh, écosystème marin bi et voilà te loolu lépp amul benn mesure bu mu jël d' accompagnement mhm. aucune quoi tey jii ana élus locaux yi. waaw élus dans le département de Rufisque nag plus euh, communément la la commune de Bargny. de Bargny ñun dañu am déficit d' autorité politique. parce que loolu dama jàpp ne yenn projet yi ah bu ko état di jël di ko c'est euh, je donne l' de la création de la ZES la zone économique spéciale bi mm. war a habité pays yi je pense que bu ñu amoon ay autorité politique euh, notamment le maire yu mat li ñu doon si parti bi si si si affaire je pense que bu boobaa danañu mën a dóor si table bi mais malheureusement euh, on est les parents pauvres mais ça au plan politique euh, dans le département. Omar Mbengue ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf soxna si. may fàttali ne bokk nga ci collectif Bargny ñi non à Teussiali.